mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy teg awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mun nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ni dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor a xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal. woote leen gaaw ci 77 169 13 13 77 169 13 13. kon nag nguur a kàttan mooy buuru produit kàttan yi.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 xam nga loolu la ñuy wax parfois nit dangay yàkkamti sa wërsëg ba nga dugg ci loo xamante ne ni après mooy loolu daal mais ñu ngi koy ñaanal nag mu wér man maa ngi koy ñaanal wér parce que nit ku neex la ndax ba mu demee Europe mu ngi doon tooñ waa Sénégal naan leen Europe dafa neex fii da ngay lekk hamburger da ngay lekk ndawal da ngay def nii da ngay def naa di mokke waa Sénégal dëgg la léegi Mara feebar rek a dab yàqayti mu laa naa Mara yow bu la feebar dabee kay nag nag moom ah fajur rek te ànd ak ngor te wér nag bul tuumaal kenn bul jiiñ kenn bul wax kenn lu ñaaw xam nga Sénégal dama leen a yàgg a wax ne nit da ngay préparer sa bopp ndax bés day ñëw wér du chaque jour ngay wér de <laughs> ndoga gaaw nag gis nga wér du chaque jour la ko nit di am te nit booy dund ci àddina xam nga looy njëkk a préparer dee feebar dee ngay njëkk a xam nga yow ba nga demee Europe dangaa daw ndax daw lañ ko mën a tuddee li nga def daw lañ ko mën a da dangaa daw waa yàqati mu laa naa nag nañu waxante dëgg nag Sénégal boo dawee assimel say responsabilité ak lépp lu la mënti arrivé ci àddina boo dee gor rek kenn du ko yëg ndax danga naan bés ba ma dawee woon bés ba ma goree dee ma daw dama nekkoon ca internet ba ku ne ma jàppiseeg yow di tooñ jàppise laa ko mën a waxee sax xam nga yaa ngi doon génn di wax jàppise ak tooñ nga ko mën a tuddee xam nga kenn génnul woon ne la Mara bàyyi li ngay def bu fekkee danga daw liggéeyal ci personnalité ak dignité waaye xam nga sénégalais yi dañ lay jay ngay jayaxu ñu lay jay ngay jayaxu ba nga dugg nag ca kàmbal safara ga kenn du la jox loxo ne la kaay ma génnee la waaye yow yaxeeti mu laa naa dem nga Europe ànd ak sa orchestre nga goree di daw waa bu la feebar dabe doo am ngor nag nga faju ba wér ah bul tuumaal kenn de bul tuumaal kenn baa nga naan dañ laa sànni kort wala dara déedéet kenn du la ko fi nangul nag man moom duma la ko nangul ndax la nga waxoon nag as chiffre yaa ngi fi yaa ngi doon wax ba ne boo demoon ca boutique bay leb sax dangay xaar ba nit ñi jàll kon xanaa kon man topp naa la dangay xaar ba nit ñi jàll nga doog a ñëw leb ah. lu nekk wax nga ko askan wi wax nga lu ne sénégalais yi yow dañ laa yóbbu xam nga tey yow nga nekk ci musique bi nga am opportunité boo xamante ne ni yow xoola tamponeel nañ la sa visa nga dem Europe jouer ji waa xanaa boo ñibbisee di nga delluwaat nag mais amu leen xel du ngeen xalaat yow sa ñàkk ngoor ak sa yàkkamtee am nga dem fa daw waaye yaa xayti mu laa naa boo dawee nag kan moo la teg la la dal ah? léegi ñu ne yow comme daw nga feebar dab na la ñoom ma Matar Diop suba teel la ak ñeneen ña ca des xam nga man ànduma ak waa suba teel man man maa nga ca faramaareen nga waaye nag dëgg bu jotee dañ koy wax man ku xam ne man maa ngi ca ma Waly Seck Maria Sin may sa bigé Maria Sin waaye dama ciy waslu sama àq ndax lépp fii lañu fekk bu la ndog dalee nag yaa xëy laa naa nag maara àndal ak sangoor ngor rek nga daal di faju waaye génnaat bi nag di wax moom déedéet kooku moom du mën a nekk nit da ngay am ngor nit da ngay am dignité ak personnalité dégg nga nit da ngay am personnalité ak dignité boo xam ne lu la dal nga mën a assumer say responsabilité waaye yow ba muy neex ngay génn di felaale di dem ca restaurant yay def say vidéo di calan waa léegi nga feebar nga ne yow lan noonu noonu noonu yow feebar ba ñalee la ko teg ak ñee la ko teg ak ñalee la war a faj ak ñee dañ laa war a jàppale ak ñee dañ Sénégal nag yéen a bëgg lu yomb nag Sénégal ñoo bëgg lu yomb déedéet loolu mënut a nekk jéem faj sa feebar rek ñu lay ñaanal ñun ñëpp nag ñu lay ñaanal nga wir ci jàmm ndax yow sens bi nga bi la yàlla may mooy ñu tamponel la sa visa li gën a jafe ni ñaa ngi dugg ci gaal yi di dem waaye yow nga war a ànd ak ñoom joué mu jeex nga ñibbisi nga ne Europe ngay toog da ngeen yaakaar Europe dafa neex Europe amul dara lu fa neex teel a xëy guddee wàcc moo fa am amu fa leneen ngeen yaakaar da ngeen di tib dem rek di tibb ci xaalis ba di sol ci seeni saako ba mu fees ngeen daal di ñibbisi maara encore une fois àndal ak ngor ndax boo àndoon ak ngor di nga ànd ak ñoom Sidi Diop ñibbisiwaat fii ci réew mi te xam ne yow am nga sa visa tamponel nañ la visa ba pare visa du la jafewaat nga mën a demaat ay da ngaa koree ba feebar dab la pour génn amal ko te nag ku ci génn nag di wax da ngaa saytaane fi sa waa suba teel dañ kaa war lii wak dañ kaa war laa da ngaa saytaane di wax ndax ñoom seen yoon nekk ne da ngay wax yàlla Sénégal nag bàyyi leen fi nekk dugg sa suuli waxtuma nañ ngay dox bu feebar war ngaa dem bés dina ñëw xëy na nga feebar wala dara dal la ci nekk na nga war di sóoraale sa bopp nag buñ ci nekk nag di wax leen waa Subatel wala nga leen koy jox kooku moom ma ci ànd moom jël nga ko daw lan bu ñu fekkee naan naan waa Subatel rek waa Jokkor maa jor waa Jokkor leen ah déedéet fajul nag ba wér ci gor maanaam ñaan rek ci biir tàmm ngeen nag tàmmaate tamaate moom da ngeen moom di ko def doog a ñëw yàlla teg la ba wér ak ku la di dimbali ci àddina rek dalaa dimbali te yàlla tax mais dimbaliwu la ci sa amoon ngor amoon ngor doo daw boo amoon ngor ànd ak dignité personnalité du nga yóbbu Europe nga daw déedéet yàlla yóbbuwaat ah les sénégalais ngi yàqal ko dama yàqal xam nga ne yàqal ko wërsëg moo tax nit di dem di toog ci sëriñ di liggéey moroomam parce que kookoo ko raw boo doole xamee sa wërsëg nekk am na lu yàlla moo ñaari ci yow mooy yàqal doo toog xaar mu yegg si nga ànd ak moom dem waaye da ngeen a yàqal ko ni biir muy daw maara encore une fois man moom su ma sori su ma gën a nga daal di wér wér si waat amaat sa la toog naan la waa suba teel ak pour que dafay génn ndax mu ngay tooñ waa suba teel ngay tooñ waa suba teel de. kon nag yàlla daa def ndeysaan man Maria Samba si ngi laa àndal nag waaye nag kaay ma wax na nag eh, kii di eh, kooku nekk suba teel gone googu nekk suba teel moom bu baax la nit ñi wax bu baax la nag ndax nag wax ba tey moom génnul ko te génnul wax bàyyi la nag di yàq seen seen am nawle ah xam ngeen ko rek. kama sala na xira sa sabali bref ndeysaan maam Njaay Sabon ak ak maam programme waaw seetaan yi kay moom xanaa di koo ànd ak sa xel mooy waral ay nit leen feewale ngeen di jaxasoo ngeen nit ñee leen jaxasoo ngeen di jaxasoo nii de ba pare ngeen teeyu leen dalu leen teey ànd ak seen xel mën a régler li ngeen réglé wu dara dara dara xew te la leen daloon nag yàlla bu leen dalaat am jom ndax ñu fréquenté yenn nit ñi si góor bay am relation ak ko ñuy wax ci yow da ngay tànn say xarit say àndandoo ak ñi ngay collaborer yow bu yóbboo nga xam ne moom am yàlla dina ñëw fekk sa kaw ndax nga yor métti nga nga dem kettal ko ba am xaalis ba war ko kaa jox te loolu nag daf fee bëri da ngay feebar am sa feebar am mu am yoo xam ne am na ay sàmba suraabaali yoo xam ne dañuy dem di la kettal dégg nga bu ñu la kettalee yow dañuy ñëw jox la xaalis bi la jox xaalis dañuy dem di lekk seen suunaay bu ko def bàyyi leen loolu ribaa ngeen di lekk nag ribaa te ribaa nag kenn du ko def baax lu la lewul saa yoo ko lekkee di ko fay ci lii bàcc na foo mun di jaar di ko fay soit nga feebar wala nga am kolof kolof leen a ngor ah te mbay nag gu jugee ci li moom ah xam naa dina war a mën a xam boppam ngeen dimbali ko rek nag ndax mbay ku baax la day def humour ñëpp di reetaan ah benn benn jour génn naa fi ma ne ko mbay yaa ngi ne da ngay fay appartement wu xaw ma quatre cent mille la waxoon xaw ma téléphone wu quatre cent mille di fay appartement deux cent cinquante mille gis nga fay li ngay fay noonu yow fayoo ko pour sa bopp de kala luwe ngay verser xaalis di ko di ko di ko duunal kontam nit da ngay am xel am technique booy liggéey dangay ngay économiser ba lu la munti dal nga mën a faj sa bopp waaye dara gënta ñaaw ci àddina nga ne club de wala feebar dal la ñu naan acca kettal leen ka di la kettal ak man de yàlla na ma ci yàlla musal nga feebar ñu lay kettal wala nga dee ñu lay kettal Sénégal gi nga xamante ne ay luux njuura fi ne ak kettale yow leen ñu ñëw jox la xaalis duñ la jox xaalis dañuy dem di sa faj seeni soxla ak di ko lekk bàyyi leen loolu riba ngeen di lekk nag riba te riba nag kenn du ko lekk baaxul dee leen ànd ak ngor nag yàqiti mu laana xaalis bu la lewul saa yoo ko lekkee di nga ko fay nii mbaa naa foo munti jaar di nga ko fay suwaat nga feebar wala nga am tolof tolof wala nga am nag ànd leen a ngor ah te mbay nag bu jugee ci lii moom ah xam naa dina war a mën a xam boppam ngeen dimbali ko rek nag ndax mbay ku baax la day def humour ñëpp di reetaan ah benn benn jour génn naa fi ma ne ko mbay yaa ngi ne da ngay fay appartement wu xaw ma quatre cent mille la waxoon xaw ma téléphone wu quatre cent mille di fay appartement deux cent cinquante mille gis nga fay li ngay fay noonu yow fayoo ko pour sa bopp de kala luwe ngay verser xaalis di ko di ko di ko duunal kontam nit da ngay am xel am technique booy liggéey da ngay économiser ba la munti dal nga mën a faj sa bopp waaye dara gënta ñaaw ci àddina nga ne club de wala feebar dal la ñu naan acca kettal leen ka di la kettal ak man de yàlla na ma ci yàlla musal nga feebar ñu lay kettal wala nga dee ñu lay kettal Sénégal gi nga xamante ne ay luux njuura fi ne ay njuuj njaaj jubuñu dañu lay ketal ba xaalis ba bëri ñu ne ko dëriix lekk ko duñ la ko jox bàyyi leen soxor ak iñaan seen jiko ñaaw na te bon gis nga sama vidéo nag xoola bere fag yàqay ki mu laa naa waru koona am te yow nag maara yow nga dem faju rek te jàppa sa njàmbur bañ a ndax nattu bi la dal nit tegu la ko te àq baaxul bàyyi leen jóge ci nit di yàq ab deram di yàq ab deram ak di ñaawalaate am na nit ñoo xam ne keroog ba nga génnee wax si ñoom njaajaan njaay wala nga leen di moke billay yàlla borom bët bu rëy bii ak a garaaw yàlla borom bët bu rëy bii ñëpp la fi nekkal nag te dafa garaaw moytu leen maam yàlla moytu leen encore une fois yàlla day fayul nit de borom ndey yu liggéey yaa ngi ci biir ñi nga xamante ne seen xol dafa set rafet ñu yéene ñëpp jàmm seen ndey yi liggéey seen baay kër baay toj seen xutu xata yi liggéeya liggéeya liggéey ba ne ah gis nga ñooñu boo leen waree def lu bon mbaa nga yéene leen lu bon mbaa nga di leen ñaawal maara encore une fois néew ma loolu nga doon def de diffamation laay bañ de mais dama ne bàyyi leen jóge ci nit di mokkee ka ñaawalaate sénégalais yi am ngeen defote am melokaan ah doy na waar